islaam diina ju global la yoo xam ne dafa ñëw pour defar l'humanité defar àdduna defar économie defar société defar politique ba yooyu yëpp tegee ci yoon woo xam ne lii ñuy tawat tey dootu fi am bu fi lislaam nekkoon yàlla xam na ne e, chômage du am ci Sénégal ndax distribution bu équitable bi nga xam ne moom la tëral ñu koy jàng ñun ñëpp fuqaha yi ñu ngi koy jàngale sëriñ daara yi ñu ngi koy jàngale dañuy wax ne lépp lu nu génnee ci sunu suuf mu di mbell ci pétrole ba gaz ba lu mu mën a doon phosphate ba ciment ba par 24 heures dañ koy génne xumus foofu kenn kenn du fa semence kenn du fa nekk chômeur distribution suñ borom moo ko defal boppam konoon lii ñuy wax naan gaz beeg pétrole bi seen quatre quatre cent mille yi ngeen di laaj ci mbedd mi di di yuuxu du am parce que quatre cent mille yooyu ku ñuy tuddee am Aliou Sall du am possibilité mën ko jël bañ koy tuumaal naan ko jël nga ko ndax lépp luy séddale du jaar ci poosu Aliou sàll du jaar ci poosu président de la République dafay jaar directement ci benn commission nationale boo xam ne ñoo koy saytu au nom de nation lépp luy àqu nation bi ñu génnee ko mu dem ci seen biir moo tax dama naan nañu yeewu te xam ne suñu jàmm mu ngi ci lislaam suñu jàmmi àdduna mu ngi ci lislaam suñu jàmmi àllaaxira mu ngi ci lislaam loolu nag ñun moo tax ñu du ñu de ni nga jàngee ci école occidentale ma jàngee ko ma itam ci madrasatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam et keneen jàngee ko ci école occidentale keneen jàngee ko ci madrasatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mais démocratie mooy dañu bàyyi nit ñi duñ dund liñ gëm <laughs> yéen ñii li ngeen doon doon ay xale génne ci l'école occidentale xam ngeen mu moos ne musiba wu ñu dal ci seen système yooyu la bàyyi ko Sénégal ba mu amee l'indépendance depuis 1960 ñun ci lañ judd ba fii nu toog demut lu ko tee dem ndax lislaam la déedéet kon ñoom seen système yi fi nekkoon yëpp wane nañ seen limite mënuñu dem socialiste nekk na fi ay at pénaliser réew ñu xëy xëy rejeté ko libéraux yi nekk nañ fi ay at ñu xëy xëy doyal ñoom sànni benn libéral la ngi nii nekk fi tey ñëpp a ngi wax ne doy na kon dafa jot sëkk nag ñi nga xam ne ñoo jàngee ci madrasatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam vraiment ñu jóg xeetale askan wi ñun loolu lañ gëm bu fekkee nag woote ne kaay leen ñu wooteel l'islam mooy terrorisme man Aliou Ndao maay le premier terroriste ci Sénégal bu fekkee ne itam woote ne kaay leen ñu delloosiwaat parti l'islam mooy terrorisme man maay premier terroriste ci Sénégal te bu soobee yàlla ni ñu amee ñoom fulla ju toll ni jàngee ci dégol gëm la dégol wax ñu ñëw di ko campagnal noona fulla ju ko raw lañ amee ñun ñi jàngee ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fas yéene di ko campagnal ba jëlaat lislaam delloo ko pale